Euh, Dukulant yi ah euh, ki nga xam ne moo di sama nawle Gomisa Gaaña Fara Ndiago ba ca Thiès moom waxtaanee woon na semaine décisive bi nga xamante ni dina am ci sport bi ci wàllum basketball ak football donc aujourd'hui mu ne mercredi de vérité lay waxtaanee. waaw jërëjëf euh, Salma. Mhm. nekkoon nañ ci benn dynamique. dynamique boo xam ne affaire religion mhm. am ci solo lool léegi nag ñu ñëw ci li nga xam ne xam nga tey jii. Mhm. dafa nekk benn euh, àllar tey la mm-hmm. ah? àllarba. boo xam ne <clears throat> euh, football ak basket. Mm-hmm. Euh, dañ ci am benn bés bu am solo. Mm-hmm. bu treize heures jotee. basket day joué ak Angola. Angola. football bu seize heures jotee fii ci Lat Dior bu Thiès. daje ak Togo. ñaar yëpp nag. Euh, bii éliminatoire coupe du monde la bii afro basket. Mhm. garçon léegi nag lenn moom mooy ma commencé ko ci euh, man tey jii. Mhm. sama kàddu fenn lay amee. Mhm. waxewuma ko pour jéem a yàq dama koy wax rek pour nit ci bàyyi ci xel. ñi may waxal tamit ñoom tam ñoom ñu ñoom. Euh, euh, ñoom tam ñu déglu bu baax. ñu am dégg-dégg. Mhm. parce que suba moo tax. tey ji ñaari entraîneurs yi. Mhm. Boniface Ndongo basket. Mhm. Aliou Cissé football. dama déglu seen discours. dama dégg seen discours. discours bi ma dégg ci ñoom ñaar ñëpp. boo déggee. dégg nga da ngay jàpp que ñoom dañoo wóolu seen bopp. d'accord. discours boobu ñu am boobu dafa wóoree. Mm-hmm. c'est que nag danaa la wax benn affaire euh, gis nga ci sport euh, dafa am kàddu boo xam ne euh, kàddu la boo xam ne boo ko boo ko boo ko boo ko boo koy wax. Mm-hmm. say joueur déglu ko ci entraîneur say joueur déglu ko rek. loolu mën na pousse say joueurs yi. Mm-hmm. mën na leen pousse moom mooy confiance bi nga am yow. Mm-hmm. quand l'entraîneur bu taxee euh, euh, am confiance ci ay kàddoom. Mm-hmm. kon léegi euh, confiance boobu day ñëw ci joueurs yi booster joueurs yi. Boniface Ndong ci basket bi dafa ne. Angola. Euh, obstacle la rek ci yoon bi ñuy jël ce qui veut dire ci ci expliqué euh, ci dégg-dégg dafa dafa dafa la bëgg a wax ne que Angola mii waru mën a téye dañuy jàll obstacle obstacle dañuy jàll ce qui veut dire wóolu na boppam ne que Sénégal moo mën Angola et booy xool ci kayit bi booy xool ci ci maanaam ci li ñu wane ci première euh, kii bi Euh, ci première euh, tour bi. Mhm. ak effectif yi sincèrement Sénégal moo mën Angola. d' mhm. accord booy xool. Mhm. ci effective bi effectif ñaari équipe yi. ak tamit nga xool ci résultat yi ci premier tour bi. Sénégal moo mën Angola. d' kon tey jii Sénégal dans les normes logiquement bu dee logique la ñuy wax. Euh, loolu la léegi nag ci discours bi comme que moom wax na loolu. loolu la wax a transmettre li nga xam ne li nag moom mooy joueur nii waaye nag booy transmettre say joueur ci lenn mooy que moom lenn nga wax a mën a am moom mooy stratégie bi ngay teg fexeel ba ñooñu ànd ci maanaam mën a dugg ci stratégie boobu loolu la wax ay système mhm. ba tax na <coughs> euh, Boniface euh, moom Euh, am na kenn ku ko feelu directeur technique a patron feelu na ko mhm. mu ne ko attention nañu moytu Angola kooku moom mooy Moustapha Gaye mhm. Moustapha Gaye ne ko ah nañu moytu Angola mhm. gis nga ñaari discours bi ci staff technique bi <clears throat> ñaari discours ci staff technique est-ce que ñaari discours yooyu ci moment bi waroon nañu wute wala waruñu woon wute. c'est waruñu woon wute. ah voilà waruñu woon wute. voilà est-ce que waroon na wute wala waruñu woon wute. Hmm. lan moo tax que ñoom ñaar seen kàddu bokkul. Hmm. kii wóolu na ne xam na ne que kii Angola damay jàgg kii mu ne déet moytu leen Angola léegi nag ñoo ñaar ñu ngi ci biir staff technique bi. Hmm. waaye ñoom ñaar joueurs yi dañ leen di déglu parce que kii directeur technique la. am na droit à la parole loolu moo tax wax dafa am solo ci entraîneur ak ci dirigeant wax dafa am solo ci entraîneur ak ci dirigeant léegi nag foofu nag lay ragal man ci problème boobu ñaari wax yooyu ndax ko jëmale ci kii nga xam ne wax na li kiy wax lii bu ko joueur yi déggee ak bu ñu leen ko message boobu bu ñu ko kiyee lan lay ban impact lay def euh, maxu nga nuyoo d'abord lay nuyu Salma euh, di mhm. nuyu Oustaz Makhtar ak euh, coach Fatima ak ñuy setaan mhm. di am mbégte également teewaat fii comme ni ñu ko defee mhm. bu jot coach da wax lu am solo cest à tey jii par exemple Moustapha Gaye pour man expérience la waxee parce que xëy na am na lu mu dund am na lu mu vivre te xam na Angola xëy na moom Euh, bi Sénégal di basket sax xëy na si premier tour bi moom xëy na mu ngi visionné yeneen ñi nga xam tey ji Sénégal bu bu qualifié si poule boobu lay dal. Mm-hmm. xëy na am na lu tax mu wax loolu. Euh, tey ji euh, Boniface tey ji entraîneur la jeune la. bi ñu ko joxee équipe bi yàggul mi ngi def ay résultat résultats. Mhm. Euh, fexe na ba indi euh, ay joueurs yoo xam moom si benn discours dégg naa ko mu nii dafa am sax problème classé boo xoolee sax si ay joueurs kenn sonnul si. parce que ku nekk mën nga remplacer sa morom donc kon confiance boobu la waxee. tey jii nag pour man comme li nga wax dafa am solo euh, entreneur bi la gën a mën a galvaniser sa joueur wan ka ni yaa yaa fi mën mën nga jël coupe bi. pour man kooku mooy entraîneur pour man foofu loolu mooy loolu Boniface li mu def loolu mooy loolu mooy loolu mooy devoir am mm. mu ngi koy def mooy parce que warul ni non euh, attention Ango euh, Angola ngeen di basketteel mën na leen gay non non boo ko defee si déjà euh, pour man le match est perdu d'avance loolu moom mooy discours bi mu war a def léegi nag ban discours la si euh, euh, maanaam euh, joueurs yi war a tenir loolu moo lool loolu nag mooy wax ji léegi nag. Ah, moom mooy wax ji léegi nag coach pour man équipe bi. Ah. même Angola sax. Mhm. mi war a jouer Sénégal. xam na mhm. ni am am am na match. Mhm. xam na ni entre guillemets mënul Sénégal instant bi wax dëgg yàlla parce que équipe bi mu bi bi ñu gis mu mu ñoom daanaka ils s'amusent parce que parce que ñoom bu ma nee ils s'amusent mooy mooy. c'est-à-dire xam nga mbir mi da koy bëgg ba pare. Mm-hmm. di ko def avec la manière ñu xam ne kii li muy def maitriser na ko te loolu actuellement ni moom moo am xëy na nag si trois trois matchs yu ñu yu ñu basket excuse moi yu ñu basket tax na équipe bi commencé huiler xëy na. ak peut-être match préparation yi yu ñu jotee def entraînement séance yu ñu def ak surtout ak sunu euh, tournoi bi ñu defoon fii euh, à Dakar. Mhm. am na lu mu may équipe bi ba tey ji mu ngi commencé huiler ma pour man loolu mooy mental bi li ma xam ba xam moom mooy que ni match moom dañ koy jouer match par match c'est-à-dire ji Angola la nañu jamee nii dañu war a gagné Angola ñu gagné Angola c'est-à-dire bu ñu demee bu ñu amee demee nii war nañu mën a gagné non c'est-à-dire et puis surtout Sénégal loolu mhm. ma lay wax même si football on joue sur les noms bu ñu nee euh, Cameroun bu ñu nee euh, euh, Côte d'Ivoire bu ñu nee Nigéria bu ñu nee Angola sa à dire am na équipe bi bu ñu ko waxee rek déjà ils se disent ah non équipe bi même bu ñu gagné dañu xam ne on n'a pas démérité or que dañu war a dem ak ak ak gain bi. maanaam mais ce que du loolu moo tax Moustapha Gueye wax ay kàddoom pour ba gën leen galvaniser mais nag man pour man Boniface la ñu war a déglu pour man à mon avis. Hmm, d'accord Aïcha <laughs> coach. <laughs> waaw dëgg la c'est vrai xam nga man. ñaari discours yi. Euh, bu ci nekk am na ci loo xam ne joueurs yi mën nañ ko jële bàyyi ci xel bàyyi ci xel. dëgg la booy xoolaat mais c'est kë luy problème man lu may wax a ñaar euh, euh, kii Boniface. te moom laay wax Aliou Cissé mooy que ñoom ñu ngi am affaire ak entraîneur. yu am expérience mm-hmm. adverse bi mm-hmm. Mm-hmm. équipe adverse yi dañoo am entraîneur yu am expérience yoo xam ne yàgg nañu ñëw li nga xam ne moom mooy coupe d'Afrique afro basket ba tax na il faut faire très euh, loolu euh, loolu la affaire bi lu ci ay wax ay jëf la jëf bi mu ngi commencé ci entraîneur bi dispositif bi muy teg ak stratégie bi muy teg loolu ma defe naa ne bu ko. Euh, euh, loolu bu ko réussir euh, dina favori boobu mën-mën boobu dana mën a nekk. Mhm. ma ñëw léegi bu ma paree léegi ci football damay ñëw ci basket damay ñëw ci football. Mhm. mais coach si si basket bi peut-être pour pour bala ngay tëj foofu damay bañ luñ daal si bés choqueur bi daal daal daal ñu c'est-à-dire tey def nañu tournoi cent faute enfin premier tour sans faute. Mhm. ñu dem ak effort yi cest dire demee ni ok ñoo fi mu wala parce que euh, c'est vrai que ni carton yi mm-hmm. si biir choc bi porté nañu préjudice mooy cumul de carton yi dëgg la naam mais jàpp naa ni man euh, dañu dañ dem final te àgguñu final mm-hmm. liñ daloon quart de finale euh, coupe du monde ak ñoom El Hadj Diouf bu ñuy jàpp ñoom ñu ngi naan bu ñu bu ñu ngi daje war a daje Brésil saa dem nañu demi final te te te te joué guñu ko. Mhm. loolu laay bañ mu dal leen fii nag ci tournoi bi cest à bu ñu jàpp ni dañ def trois matchs trois victoires rek que dañuy ñëw jaar. mais yow yaa ngi c'est important non non il faut que ñoom. boobu il faut mu nekk si ñoom. Moustapha Gueye nag man nag euh, mm. Moustapha Gueye nag mm. foofu lay mm. alerter nit ñi. Mm-hmm. ne leen. c'est match par match. Mm-hmm. nañu lijjanti Angola. ba pare mm-hmm. euh, jël respecté. Angola bañ a sous-estimer parce que Angola équipe la boo xam ne premier tour dafa difficilement la qualifié difficilement la qualifié dégg nga nañ ko jëlee au kii. Mm-hmm. loolu laa lay wax. balaa waxtu wi duñu xoj rek nga léegi léegi léegi léegi pour ñu ci même euh, kii boobu ci même euh, dynamique bi. booy xoolaat Aliou Cissé ci matt bi moom tam noonu la waxee. presque parce que dafa ne. coupe du monde Qatar sans le Sénégal bu ko kenn xalaat. waaw loolu la wax. loolu la wax loolu moom mooy wóolu na dafa wóolu équipe am. Mm-hmm. ba sàgg mu ne euh, tey gii dañuy ñëw pour euh, commencer coupe euh, kii bi coupe bi commencer ko ak victoire. Mm-hmm. wóolu na boppam. dama koy jox am na ci droit. Mm-hmm. loolu maanaam. bu ko dugalee ci euh, joueurs yi dina am loo xam ne lu am solo la. Mm-hmm. Euh, mais kan la amal affaire. Mm-hmm. man loolu laay wax kan la amal affaire. Mm-hmm. éliminatoire coupe du monde deux mille dix huit. bi Sénégal di qualifié deux mille dix huit. qualification daje na ak Duarte. mais gagné ko. dañoo match nul retour. daje nañu gañewu ko te Duarte mi yóbbu na footballu Burkina fu fu sore ci Coupe d'Afrique am na expérience kon nag léegi nag fu euh, xam nga lan la man match bi man matchu entraîneur yi la match bi matchu entraîneur la parce que kii Duarte moom dafa ñëw carrément mu ne damay ñëw Sénégal pour am fi résultat mooy gagné wala match nul bu ma fa jëlee defet mhm. entraîneur bu wax loolu nag xanaa nag moom Aliou Cissé mu ngi ci conférence de presse ba toog na ba saa mu ne dégg naa lii Duarte di wax kon nag dégg na ko alhamdulilah. Mhm. parce que euh, dafa am lu ko daloon. ak Belmadi ak Algérie. entreneur bi Belmadi ñëw wax ko wax ko wax boo xam ne. Mm-hmm. Euh, Aliou booy xoolaat dafa am ñaari yoon euh, ay entraîneur dañ koy wax wax. Mm-hmm. ba pare jëfee ko ko. même Cameroun non. contre Cameroun. Mm-hmm. entraîneur bi ñëw taxaw point de presse boo mu ngi toog ci buntu ba fa taxaw ci buntu ba sax moo mu ne ko. moo mu ne Sénégal moo ñu mën. waaye nañ waaye waaye nañ teg loo xam ne. Sénégal du fi jaar. ok kii kii tamit. ñëw na euh, contre Algérie mm. Belmadi ñëw Taro Bessade ne ko mu ne ko Belmadi moomu ne xam naa Aliou Cissé ñoo yàgg nekk Paris mm-hmm. xam naa ni muy xalaatee xam naa ni muy jëfee mm-hmm. classement bi sax nii la lii mooy lii la Sénégal di joué te classement bi mu joxe moom la Aliou Cissé ñëw teg mm-hmm. xam naa ni may joué état d'esprit c'est que dafa dox ci maay nam bii tamit Duarte nag fu loolu lay jéem a ut Aliou Cissé war a bañ loolu. dëgg la kii ki dafa bëgg a dox ci maayinam hmm. ci ay discours non il faut que nga entraîneur du entraîneur rek dafa am tamit xam-xam. Hmm. kii Duarte mii. Hmm. ni ngi koy gis ni tubaab bii. tubaab bii. ku jar a moytu la. d'accord Aïcha am na solo. non xam nga maa ngi wax ni. tubaab bii ku jar a moytu la. lu tax ma naan ku jar a moytu la. tubaab bii. non bi muy joué dafa joué deux fois ak Aliou Cissé. <laughs> tegal ko ay équation tactique. Mhm. kon nag tey jii mu ñëwaat di waxaat di waxaat yooyu kon nag Aliou lenn rek mooy kii. day jéem a dox sama en. ngalla bum ñu yay. voilà day dox sama en. Mhm. am bu mu la tegal dayal loo xam ne. lu mu la tegal jéem ko dindi. loolu kese mooy match bi. ñu jaajëfal Adama Ndao Damas. comme ah macha allah jigéen ju mën góor dina am de fer ak borom kërama ah, Cheikh Seck bu baax a baax a baax.